السلام عليكم آه، تبارك الله دف ملني لو دف مجيك لا ودك يالله بو جوتي nga defat ko ملني دف دي اي جورني culturelle nga xam ni sama waa cité bopp mu di cité Aliya Jéen ñu koy def at bu jot wa tabaarakallahu ñu daan ko defe ca cité ba yàlla dogal reen ak chantier yi nekk ci dëkk bi ñu mujj ñaan ñu defe ko fii mu mel ni bu ñu ko defee woon ndarit cité Alioune Diène ñoo ko moom ñu di leen nuyu te di leen jaajëfal tabarkalla ni ko soxna Ndey Kumba waxe wax ko ci seen tur te ki nekk ci seen kanam di Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye di boroom gërëm tabaarakallaahu yiw du doy mu mel ni ñu ngi fi am ñi ñu amul lu dul ñoom te moo di Baye Omar Samb mu ñëw fi ci turu góor gi Seyid Cheikh Ahmed Tijani fa tabarakallahu mu ànd ak xaaj Malick Cissé ànd ak sëriñ Samba Cissé ñetti fan yi yépp ñu ngi fiy jaabante ci ndigalu góor gi mu mel ni loolu bu ñu doyul yaakaar ba yeboo rekk ñu bàyyi وتبارك الله نيغي في اميتام اي كليفه يو في تيو شي والو ادا مو تم نيكو بابكار وخه ñu ngi nuyu kilifa gi ñoo wax jaraaf may ngiraan benn tabarkalla mu ànd ak ki mu àndal ñu di ko tuddee tabarkalla suñ pati patendo fan jóg ñu taxawal fi ñi ñu fi taxawal ci wàllu aada fekk itam ñoo tudde jaraaf seeni géy tabarkalla moo abal njaboot yi barab bi pour ñu def fi xew-xew bi mu mel ni kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi waaye sant leen itam ci yaatal gi sant leen itam ci teewaay bi gannaaw loolu itam ni mu ko waxee ci wàllu sous-préfet mu di Omar Sene ba ak taxawaay bi mu def ci wàllu autorisation bi ñu ko ciy gërëm te di ko ñaanal yàlla comme ni ñoo gërëmee commandant wu brigade foire bi nga xam ne événement yëpp daf koy ànd ak njaboot yi di leen ci jàppale ji gërëm itam entreprise u CSE biy defar yoon yi tabarkal la ci jàppale bi ñu leen jàppale pour defaraat barab bi ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi sant ñëpp te mu mel ni itam ñi ñu am ci wàllu daayira yëpp commencé ko ci collège père yi ba ci collège maire yi tabarkalla ak waa comité permanent ak commission yi nekk ci daayira bi ak cellule yi tabarkalla ak superviseurs yi nga xam ni ñoo yore axe yi dafa tabarakallahu Babacar représenté leen fii te programme bi itam diggante axe un ak axe deux ñu doxal ko ñi leen ci jàppale jàppale leen ci rawatina section daayiratul mustarshidin bu cité bi ñu ngay sant ñëpp di sant itam ñu yore wàllu internet bi ak seen rajo ak seen télévision ak animateurs yi ak techniciens yi ñu ko bokkal yépp ñu ngi gërëm itam sunu section extérieure yi sunu mbokk Maurice seen jóge na ba Paris ñew fi pour représenter ñep mo melni tabarkalla it sunu gani bop yi ah mohammed Silla jóge Mali ak sunu mbokku bop Seyd mohammed Ahmed fay ah dëkk ci kër Alpha Combaan waaye dul noyyee lu dul Seyid Cheikh boo ko fekkee portable am waxtaanu góor gi la ci def ah bu waxee ñaari baat rek mu ne xaaral ma dégtal la daal di taal portable waaw moo jóge ci duwalul xalif dafay jàbbante diggante Arabie Saoudite mu nga Imarat mu nga Kuwait léeg-léeg mu ñëw seet si mañu waxtaan mu ñëw nag fekke bii moo tax mu ngi toog ñu nuyu ko tabarkal eh, ñu ngi nuyu itam suñu magu daara yi ñoom ñëpp ñu ngi toog di nuyu itam ci wàllu famille ñoom ñëpp itam bu ñu teewul teewaayu Mansour Sarr mel na ni ñoom ñëpp ñu ngi teew ak njaboot yi topp ci seen gannaaw ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp dafa tollook àdduna kenn mënul toog te defuloo dara waaye itam dañu wax ni dund bu ñu ko tegul ci ambition dund ga kenn du mën a wax fu mu jëm mu mel ni ambition nag ku nekk ak nañ ko déggi waaye dafa am benn filosof Qui fait yi passé ci benn débat bu am ci télévision bi ñu di ko laaj ku bëgg am ambition l'année ngay def mu wax ni dangay fàttaliku bi nga nekkee xale ku fàttaliku bi nga nekkee xale daa man fàttaliku lan nga doon gént waxuma géntu nelaw maanaam sa rêve d'enfance nga naan bu ma nekkee mag lan laa war a doon di commencé di janeer lan nga bëgg a doon mu ni ku dellu foofu daa war man am ambition ndax benn nga fàttaliku gént boobu walla nga xalaat ba nga ca tolloo li ñi ci des amul danga fas yéene am jom ñu am ko Mou men ni item, am ne ben ne kilife boun yo tout de George Pompidou. Den yon kon laj, ki bid ambisyon bo poule. Mouni rev dan fans de ayol. Woye ambisyon boun nit mena am ti dun nou, bu correspondre ak réalité ba yoboo bomu bay wa ñu ngi waxtan waxtaan mag góor gi barki demb wa Baye Omar bi seede le ci ma ne ko waaye seen wax ba yépp dafa am bu ko ëpp doole pour man moy li gor gi waxon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biko yalla yobbo ba mo rañan ak yamu gis ya mu jànkonteel yépp la muy rëy rëy rëy ba mu noppee dañ ko wàccewaat ndax xam ni liñ koy doye newul ca kaw liñ koy doye ci suuf la nekk waaw waaw boo xeebee li ñu la jox rekk ak li nga tollool dangay waraalu te doo xam foo jëm waaw bu ngeen gisee sunu boroom boo seetloo ci alquran sunu borom même verbe bi muy utiliser pour le passé même verbe bi lay utiliser pour le futur parce que pour yàlla démb ak ëllëg yépp pour moom tey la waaw ah. moo tax ata ata ala al insani حين من الدهر كوكو سي دو باسي أتى على الإنسان حين من الدهر كوكو سي دو باسي وي بور لو فيتور نك أوسي أتى أمر الله فلا تستعجلوا مانا ألغو يالا بوي فيدي أمر الله دانان ألغو يالا yegsi na ba noppi kon yàkkamti xaju fi ah. mu mel ni kon nag fa xud ma aataytuka rek tey li la yàlla jox tey jàpp ca ah. Ah. bu ko defee kon nag baat bi góor gi waxoon maanaam bala may ñëw ci baat boobu li xale yi doon def la wax ji ne ki xaar ba di rêve d'enfance pour am ambition kooku dafa tardé kon anticipation parce que li ñu bëgg a doon ëllëg moom la fi wane donc ñu defar leen ay mesures d'accompagnement pour duñu xaar ba ëllëg ñuy dellu si ci seen tofoo la et dañu anticiper ah bu ko defee kon nag génne nañ fi ay xam-xam joxe nañu fi ay leçons leçon bi pour ëpp doole mooy bi ñu wax ci al imam abu xanifa ah aspect bu de nekk rek la te itam wax l'histoire se répète ce n'est pas l'histoire en tant que thème. mais ce sont les réalités parce que les réalités, pour y n'ont ni passé, ni présent, ni futur. Réalité, réalité rek la. beaucoup dem Li walaf nak di wax bo ñun la war ndax bés des na ko ñam kooku dafa xat ndax bu fekkee ni doomu mbër rekk a war a jàngi bëre dafa xat parce que ku bërewul ak nit it di nga ak àdduna ah. iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al xalaasu wa kulluhum aadaay waykat bi moo ni ñeenti mbër yi ci sama kanam te ku ma ci daanul rekk nga daan ma te bu may daanu di yàqu iblis a ngi taxaw mbër la te boo ko daanul mu daan la te bu la iblis daanu nga yàqu waaw àdduna ngi fi di mbër boo ko daanul mu daan la te bu la daanoo nga yàqu sa bakkan a ngi fi dimbal te boo ko daanul mu daan la te bu la daanoo nga yàqu waaw bëgg-bëgg yéeg neex-neex yi mu ngi fi di ay mbër te boo leen daanul ñu daan la te bu ñu la daanoo nga yàqu kon bala ngay nekk doomi mbër nekkal sa mbëri bopp ba noppi waaw pour affronter yii soga xam lay def motax li góor gi wax gis nga li ñoo tudde ikhtilaful adwaq wal masharib xam nga wolof mooy wax ni la musaf ka ka màcc moko xam waaye ku nekk ak la nga màcc cafka yu bokkul mu tax waxinu góor gi baatam boobu lu jara bàyyee xel la li mu wax ni nettali nettali waxi jaamu jarula a kaalawu waaw suñu cheikh moo ko wax ñu ngi koy répété ci rajo yi fan yi nettali waxi jaamu jarul a kaalawu xëy dañ ñu koy interprété dañ koy bëgg a interprété dafa ne dafa am ñu muy gaaral mais fekk na leçon bi jiitu na sax wax bi mooy bi mu ñuy jàngal ci gàmmu Tiwaawan al farq bayna riwaayati wa diraaya riwaayaat yi bokkul ak diraayaat yi waaw di yër këyit gi wax ak li ngay wax génn ci sa xol fekk muy leeru yàlla bokkul moo tax nag toujours bu fekkee ni daf la wax moom ni la nettali waxu jaamur jarul la kaalawo kooku xaqiqa la maanaam réalité boppam la bokkul ak li taaxuraankat bi di wax taaxuraankat bi moo lay wax ni waxal sa wax waxi jaamur du wax waaw ki la ne waxal sa wax waxu jaamur du wax te wolof ni ko ku wax ba dugg du yow yaay waxati ba génn ca keneen ay wax ba nga génn ca moo tax boo xeebee waxu jaamur bés dina ñëw nga dellu ca par force waaw looluy tax tànt bi ñu fi tànt ak ñetti fan yii yépp ñépp bàyyi seen soxla ñëw toog ci tant bi waxi jaamur a ko waral waaw am na ñoo xam ni seen wax moo tabax àdduna am na ñoo xam ni seen wax moo tabax nit am na ñoo xam ni seen wax moo tabax euh, euh, diine ah looloo tax gis nga ku ne la di sa cër rekk jël ko bàyyi keneen la ko yàlla jox xam nga dañu wax ni xel moo tax ñu wax nit xel waaye boo jëloon lem lem taajal ko xel mënu laa wax lu mu saf fekk làmmiñ ñëwul xaw ma ndax dégg ngeen wax bi wala déet ah li xel di rëy rëy moo tax ñu wax nit waaye boo jëloon lem taajal ko xel mënulaa wax lu lem gi saf fekk làmmiñ ñëwul donc loolu ciru làmmiñ la kon nag lamu saf waaw kay وتحمل اختلاف الاذواق والمشارب لولو موكو هندي خم نيت ديغا غيس نياري نيت يو بوك بن فيليير بو نيو سيفر تي حقيقه تا سين ميثود دو مان بوك سين لانغاج دو مان بوك لو رك لا يالا دون جانغال تي ديغنت موسى اك خضر انك لن تستطيع معي صبرا ها جورجي وحمكو بركي ديمب وحمكو من واي وحلن كوين مسترشدي نما مصف وخال خالي نانيو موني واي نانكو ديف موني حقيقه تا بانكو ديف موني عاده انا نمونو عاده دا توك دي توات nee na muñu xaqiqa nag da ngay am pas-pas jóg taxaw jóg tëral seet nooy def mu ne loolu mooy muñu xaqiqa ba tax na yàlla li mu bind fu ko neex rek mu def ko xam nga yonent yàlla suleymaan keroog bi mu jub see këru xorondom bi te seetluwu leen te ki monte garde ci xorondom yi ni yaa ayuha namlu udxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuudu fa tabassama daaxikan min qawliha xorondom bi wax gi mu leen wax ni gaaw leen duggaat ci biir ndax Suleymaan a ngi ñëw ànd ak i gardam ak i protocole am te mën naa am sax duñu leen gis te mën naa am sax mën nañ leen maate te du ngeen ko yëg yàlla nag fexe ba ñu transmettre en direct wax bi Suleymaan dégg ko muuree nag muuree moom Suleymaan ndax rekk waxin bi xorondom bi wax xam ngeen ma laaj leen ca waxtaan wa ni waaw bu fekkoon ne Souleymane dafa rencontré leneen lu dul xorondom est-ce que même comportement bi lay am ndax fa tabassama sama est-ce que moom lay wax defaat walla déet waaw pour wax la lu nit ak contexte bu mu dikkee dañ koy respecté ndax toog na beneen yoon moom Suleymaan ñaari picc di waxtaan ci kawam ndeke picc bu góor bi dafa nopp jigéen bi pour neexal picc bu jigéen bi mu ni ko gis nga couple bi nga xam ni moo tiim Suleymaan bëgg naa la ba boo ma ni woon naa ko daaneel ci kaw Suleymaan ma daaneel ko ci kawam yàlla dégguloo ko wax bi mu mer gis nga fële tabassama daaxikan fii picc bu góor rekk wax picc bu jigéen pour neexal ko ni ko boo ma ni woon ma daaneel coupole bi ci kaw Suleymaan ma daaneel ko mu mer daa di convoqué picc bi wax loolu ni ko ci fan nga teg sa nobel jaral la bu la bu jigen bi waxon nga daniel ko pol bi ci sama kaw nga daniel ko foko tek teg ne ko man defon nani xam nga ko xoolal loolu mu ne ko yow ñu fi bàyyi di man ma defon ni xam nga ko mu ne ko waxewuma ci lisanul aql lisanu sababa la waxe te lisanu sababa lisanul junoon maanaam làmmiñ ñu cofeel mook làmmiñ ñu pas-pas ñoo yem bul teg borom dof la muy wax xamu ko waaw waaw moo tax ko àttee ci raison doo dem waaw koy àttee rek ci ni fala tollu ku ne tollu na ca bis waaw wax loo xamul lan la waaw loolooy tax boo nee waxu jaamur du wax dañu wax ni tey goo gis tey goo gis démb ko dungoom moo tax mu sut ko sëriñ Cheikh ni ba mu des ci sëriñ Babacar démb goo gis maanaa al mutaaxir ah la yaqumu daiman illa ala aktafi al mutaqaddim ka ñëwoon démb moo la tungóom yow mi ñëw tey moo tax nga sut ko Seyid Cheikh ni valable na ci ñëpp ba mu des ci Sëriñ Babacar moo tax xayarta xukma taqaddum ah. loolu waxin la gis nga sunu boroom yonent yépp yëgal na leen ñëw Muhammad waaye wanu leen alquran lu jara déglu la yonent yi mujj ñëw yépp kenn ku ci nekk annoncé na la ñëwu muhammad ba ñaan nat rawatina isa bnu mariam ñaan na ko mu annoncé communauté ñëwu muhammad waaye ñoom ñépp ba ci malaaka yi bi yàlla waajalee alquran denc ko amul kenn kum ko wan parce que xam na ni Moussa bu bëtam tegoo ci alquran du nangoo indi tawraat Isa bnu Maryam bu bëtam tegoo ci alquran du nangoo indi injil te il fallait tawraat jiitu injil jiitu pour ñu xam alquran mooy lan moo tax mu nëbb leen ko ba boroom ñëw motax jibril sax interprète rek la ci doon parce que lughatul ghaib ken mënu ko wax fi il fallait mu ñëw rek pour ñu interpréter texte bi ci lugat lugha al alam hada waye la aju ci yonent bi maîtriser texte ba sax nekul ci jibril ci sunu borom la nek c'est direct entre mom ak yonent wa innaka la tulaqa alquran min hakimin alim bokul ak innahu la qawlu rasulin karim bokul lolo tax il faut faire attention wax naa leen ci waxtaan bi passé lu tax keroog sunu boroom bi mu jëlee décret bi mu jël pour nommer Adam وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ديسكسيون بدون ام تي ملاكي pour ñu baña ñu ñak depo ci décret bi te yit ma wax len ni baat bi ñu jiital ci subhanaka la ilma lana illa ma allamtana comme la ilma lana pourquoi ñu bëgg sos ben idéologie du soupçon idéologie du soupçon mom la mag ñi di wax ci sen bir il faut faire attention idéologie soupçon bi jàpp malaaka yi ba ñu juum ci xaqu aadam ñoom am nañu chance chance bi mooy seen bi jeexagul yàlla sant na leen ñu sujjóot pour réparer seen erreur mais ñoom soupçon bi bañ lu ñaaw a tax waaye bañ aadama taxul lu jar a moo tax soupçon yi moo indi sukkuuk yi ما إني ظنوني ما إني الأوهام الساتدة للقلوب lil يتخ شال حاج عمر الفوتي pour wax la te boobu sharia wàccegul muni opposition bi malaka yi jël ci walu adam ci sen haqq منكر لا موتاخ ني سجوت لي لين pour réparer منكر بي منيم كوم نيوم نيك باغ لو نياو رك تاخون ني سجوت لو لين يو مي اوبوزي فك باغ نيتا تاخ باغا ادى الى منكر اعظم kon noo koy réparé waaw parce que sujjóot bi foofu aadama moomu ko moo tax ñu bari di daanu ci wàllu alquran il faut faire attention dan nga gis naar bu jógee ci réewu arab yi ñëw fu mel ni Tiwaawan ni dafay visiter si dafay nuy si kilifa diine yi ci Tiwaawan booba ñu ngi ci daara ji te bu ñu duggee ci jàkka ji gis ba meelu Sëriñ Babacar nit ñi taxaw di julli ñu gedd pour wax ni hada xaraam ولين لا جل تخمو حرام ني يوننتي بي موكو واخ ما واخني بولين جل سن باميلو يوننتي اك باميلو اولياي ديكو داف اي مساجيت fekk dégg ñu xadis bi foofu masajit firiwul càkk firiwul jàkk li yonent bi bañ mooy nga sujootal borom bàmmeel bi loolu la ci jublu waaye nga sujootal yàlla nag mi la dundal yow te rey ki ci bàmmeel bi kooku beneen dégg la eh, ma ne sujoot موتخ صلي على ساجد صلي على ساجد قبل الورى فعلا لو كي وتقلبك في الساجدين من اي أنت بي لا يلا وحنيكو سينجا جيني مام ينجا جيني كتي مسا سجود الخير مامولو doy na ku ci masa sujootal xërëm amul waxin la moo tax kon nag buñ ko ne moom salli ala sajidin qabla al wara dinañ ko mën dégg waaw waaw bu ko defee la ma leen waxoon ci fahmul kalaam ak fahmul mutakallim bokkul gis nga dégg wax dafa am du ko gën di farata mooy xam kiy wax kana xam nga boo jàngee alquran yàlla indi na saar ñu tudd wal fajr yàlla indi na saar ñu tudd wadduha yàlla indi na saar ñu tudd wal asr yàlla indi na saar ñu tudd wal layl ida yaxsha kon tudd na fajar tudd na yor yor tudd na takkusaan tudd na guddi mais koku yow mi nek ci al falak al ardi ya tax ñu tuddu ko jant fenk na ak jant sora boko waxe waxee bi day re parce que yëgul fu mu fenk yëgul fu mu soy jant du fenk jant du so tajri li mustaqarr la دائما ابدا ذلك تقدير العزيز العليم moo tax ki horizon xat moom la ñu wutal fajar wutal ko yor yor wutal ko tàkkusaan wutal ko guddi parce que buñ ko defalul boobu calendrier du xam nu muy organiser boppam mais am na ku ci tënkuwul majdi axiran wa majdi awalan shariun والشمس روضة الضحى كالشمس في طفلي ko defee waykat yi ñoom di ko way woy bu simple rek ni nga mel noor noonu ngay mel nawet loolu waxin la waaw dafa am ku nga xam ni li tënk nit ñi tënk ko ndax xaqiqa ba mu nekk moo tax góor gaa ngi koy wax keroog di wax ni Cheikh El Hadj Malick xam nga dafa am ñoo xam ni pour ñu diingat nit du ñu am courage yu diingat la de dañuy wut fu ñu la jaar am ku ñëw ci Maodo ni ko ñi la jiitu ñëpp def nañu jihaad ba mu def yow Maodo ni ko waaw mu ne mu ni ko waaye ñi ma jiitu te def jihaad seen jihaad dafa amoon ilimaan mu ne ko man nag ñi ma taseel kenn ku ne yaay sa ilimaan yi bopp te bu jihaad amul ilimaan jaru ko te koo ci ni ma jiitu la mu ne man kenn du ma jiite loolu waxin la waaw xamuloo ni bari na lu nit deful ci jamono fekk fus taxul contexte ba tax parce que góor gi dafa wax lu garaaw a garaaw fan yi ñu ci bi ñuy waxtaan mu ni mu sef fii ñaar rek a fi nekk ma ni ko lan mu ni ma aladdul xisaam ak xasimu mubin ñaar ñii ne mag ku jàng téere yépp te pas-pas bu mu nangoo newu fa loo def mu ni du noonu fekk la muy weddi xam-xam lalu ko xolama ko lal koo koy aladul xisaab mu ni ma ki ci des sax bu fekkee ne am na lu mu gëm a kës néew waaye ñor gaa fa des moo tax lu xew mu ni waa nu mu mën a nekke mais am na loo xam ni kenn du ko jàng di ko nangu danga koy gëm rek noppal sa bopp xam nga ba bokkul wax na dëgg nee na yitte ak yëngu bokkul waaw ah, yëngu mooy kuy dugg ak génn rek te mën naa am du def dara waaw ah, yitte nag nit ki mën na toog benn place te fekk li yëngu yépp moo ko yëngal بكل آه. والله والله والله بتخنا خمغا خصيم مبين لكاين دي آه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ها أه؟ لولا اللحظه loolu la laaj looloo tax yàlla nag jiital ca aaya ba waaw waaw waaw indi ko ci boobu façon di xool ba nit di nekk nutfa awalam yara al insaan anna xalaqnaahu min nutfatin ne gannaaw ko fa idan huwa xasimun mubin wa daraba lana mathalan ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم واو waaw ki nangu ni dee am na ba noppi ki nangu ni dee am na ba noppi mais lu muy laajati pour ñu jox ko argument bu mu gëmee tekki ku ne war nga gëm ni li def dee war na man def dekki mën naa am ndekkee gën simple sax waaye ñàkk ñor ga mooy tax boo demee ba ci biir dootoo gis pas-pas bi fu mu féete waaw loolooy tax ci biir nekk li xew ci jamono dafay mel ni génnewul ci ñaar yooyu maanaam léegi contestataire amatul euh, dispensateur d'injures mo bare léegi Mana da ngay da ngay def sa waxtan bu sa waxtan yow li ngay wax yépp en nom et conscience xam nga ko ci biir xam nga ko ci biti xam nga fi nga bok xam nga li nga donn xam nga fa nga jëm ngir yàlla ak sa kilifa waaw nga fekk koo xam ne day añ ak ceebam ba ba noppi rek nga wax muy tëltëli lu tax Moustapha yi wax nangam ñi amul courage mënuñu la attaquer ñu organiser ay émission parce que duñu mën xuloog yow ndax dañu wax ni ci daara ji lañu bokk mais ñuy wut nag ku leen xulool erreur la parce que xam nga dafa am lu ma dégg fan yi mu nekk baat bu gàtt te garaaw dama dégg tubaab yi tudd baat bi ñoo wax coupable héréditaire waaw coupable héréditaire ñu ni loolu mooy lan ni ki maamam ki maamam ñëwoon bañ sa maam baayam it taseeg sa baay bañ ko yow ba boo nga xam coupable def contentieux wax parce que tout seet ndax parce que la jiitoo tax waaw looloo tax góor gaa ngi koy wax ni daf ci jot benn lettre mais lettre bi borom amul courage parce que lettre anonyme la ko def naan koy yéen amul leen lu ngeen fi nekkee lu dul di wër di xuloog nit ñi rek ak di di tontu nit ñi suñu cheikh ne waaw ku waxul kenn du la tontu

daal di ñaaj pour dugg ci biir xale yi téye ko ni ko du noonu bu fekkee da nga soxla Moustapha rek bàyyi fi yóbbante bi ñu wax ko ko moom bu la joxee bés foo nekk dinañ la mën a gis wax la ko nga ñëw mu recevoir la mais newul fii mu daal di tàng daal di jëy buru aayul waaye dag yaa aay xale bi ni ko léeg nag dag bu aay dana baax ci nit ku aay lu am solo la waaw sëriñ babacar si moo ko daan wax na ngeen wut ñaari mbubb mbubb ilimaan ak mbubb saay-saay ndax bis bu ne ngeen am ganam waaw boo amee gan gu yiw nga jël sa mbubb gan gu yiwati ah ku yiwati ku yiwati la waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wax bu garaaw nee lu ne lu ne bu ñu ko tudd fekk xamuñu fu muy teere ji lu ne bu ñu ko tudd fekk xamuñu fu muy teere ji mu ne li nga tudde yiw li nga tudde yiw te bala laa bàyyi nga dugg safara yaa ko tudde yiw waaye du yiw ne li nga tudde ayit te te balaa laa bàyyi ngeen téere aljanna yaa ko tudde ay waaye du ay waaw ah, mu dellu ca asaaja ka asaaja rek waaw lu ci ne xamal lan la xamit loo koy loo koy nangoo waaw looloo tax boo déggee ñu ne la wallahu la yusalu amma yafal yàlla kenn du ko laaj li ngay def lan la xamuloo du du jëmi prérogative am sax moo tax ñu ni la doo ko laaj li muy def lan la mais kiy laaj dafa am jot te yàlla moom jamono bu ne mu ngi ci dara kon amul jot kon ki am jot fekk ki amul jot mu bëgg koo laaj tontu mënu fa nekk prérogative bi nag soo ko ñëw mooy ko xam lépp bind lépp xam ku ne foo jëm ak looy def yow mi xamul dara bëgg yàq bëccëgam ak laaj jaru ko jaru ko loolooy tax nag ñu bëgg rek wan la ni la yàlla daal li muy def soxla wul ku ko laaj li muy def pour nga simplifier affaire bi waaw ndax da nga am jot mais bo amul woon jot doo ko laaj moo tax wa ila rabbika farxab waaw waaw wa ila rabbika farxab waaw ah bayo war nee na lan lay war a def ba góor gi defati benn conférence yag nañ ko tëral wacc nañ ko fi ay yoon way bu ci ne ba barki dem ma mu ma koy mu ne ma musaf am lu ngeen di sañ yeen te man duma ko sañ man ngeen assumer sen responsabilité scandale bu mu man jur ngeen sañ ko mais bu dee man safara bu jur jangoro lay doon te xajuma ci safara bu jur jangoro waaw waaw loolooy tax waaye dinañ ñëw du yàggati waaw moo xam laylatul qadr lay doon wala leneen lay doon ma asa wa asa waaye kenn du ko dogul waaw waaw waaw moo tax yàlla sunu borom tudd ñetti baat ñetteelu baat bi moo mat a wàccu parce que yàlla dafa tudd baatu taxriif tudd baatu tabdil tudd baatu ilga bokkul ak law waaw waaw maana taxriif mooy xaw firi rek ci tubaab li nga tuddee falsification maanaam lu ne ak importance ba ca aju ak contenu ba nga falsifié ko ba la ca boroom jublu woon kenn dootu ko ci mën a jariñoo loolu dafa bari ci biir jamono ci ñiy faral di commenter waxu nit ñi ah di def ay falsification boo waxee lii ñu dem di lii nga wax waaw mën na am sax boobu garaawul fekk xëy na nit ki moo tolluwul ci dimension kiy wax yuharrifuna alkalima an mawaadihi bu fekkee ni insuffisance rek la mën na bañ garaaw tabdil moy nga dénaturer une réalité réalité bu demee nii yow nga fexé ba boo interpréter nit ki nga dénaturer réalité bi ba nit ñi déggé ko nuñ ko warul won déggé bobu it yalla wax na ko ca alquran baddalu nicmatallahi kufra ya ca des yépp mais yooyu yëpp mën na bañ garaaw bu ñetteel bi mooy li xew ci jamono te moo war a mat a wattu mooy ilga moom ngeen di xaw a firee intox waaw maanaam intoxication la mais ñu dagg ko rek ne intox waaw wa qaala alladina kafaru la tasmacu li hada alqurani walgaw fihi laallakum taglibuun waaw maanaam ca bu jëkkoon bi alquran di soog wàcc yéefar yi xam nañu originalité bi ci texte bi ak dimension waxinu yàlla bi ci alquran xam ni bu ñu mayee nit ñi teeyu ñu taataan ko ñoom li ñu bëgg dootuñu ko am donc mu ngi wër nag seen complice yi pour ñaan leen nañu intoxiqué nit ñi ci biir alquran bu yàlla waxee ni ñu détourné ko waxe ko nelee waaw neen parce que bu ngeen deful intoxication rek du ngeen mën a fexe ba li ngeen bëgg a ngeen instauré ko waaw mu mel ni loolu ci jamono dafa nekk benn réalité bu nga xam ni njaboot bu nekk war na ci di delloo si xelam xamit ki la yàlla booleel kan la parce que bu la yàlla boole koo xam ne yaa ko war jàngale boo demee ba opinion mbedd mi di la ko jàngal nga am toor dama am benn nit ku nga xam ni ni mu jege ci man ak ni mu seere ci man mu ñaan ma rendez-vous fan yi ma recevoir ko ci sama biir famille la bokk mu ñëw ak tristesse ma nuyu ko ñu toog ma gis rekk béggul dara ma ne ko waaw lan la woon ma man kat dafa am ku ma téléphoné ni ma yéen kat nekke da ngeen a juboo ma ne ko ci ma ne ko ci lan mu ne ma dafa am ku ma téléphoné nee na sëñ Moustapha mi doon xas Ablaye Wade dégg nga boobu waxin mi doon xas Ablaye Wade ci gam gi léegi juboo na parce que Ablaye Wade jox na ko cinquante millions. nga xam ni kade yi kade yi seen joma yegg ci bu ma soxla woon 50 millions du yu yendoo بالله والكتاب waxatuma la ak mag ñi gis nga yooyu moo mat a genre intox maanaam li tax ma wax len ko il faut faire attention dafa am yoo xam nitu mbedd yi man nañ ci djoum mais amna ku ci warul djoum parce que dama xaw jaaxle ci gàmmu tiwawon bi góor gi wàccee ba mam Maodo ci loxo bi diko ko yóbbu mu ànd ak serigne Pape malik ñuy dem dafa am benn nit bu ma dab nuyu ma mel ni ma dafa ne daf may accolade mu ma ci nopp ni ma jox ma sama wàll jox ma sama wàll dama xam ah <laughs> waaye hein? loolu kit bësu gis Haj balik si nee na dafa de la ndegete boobu li tax mun ma jox ma sa wàll nee nañu ni nee nañuy Idrissa Seck li mu yoroon ci xaalis yëpp jox na ko Moustapha pour wax la marus nag marus da dama defoon ni nit war na xam nitam ci façon bu nga xam ni xanaa bu ma yàlla nattu woon sax ba ma accepté lu mel noonu du ma goree di kon am na koo xam ne du laaj muy xaar naan ma jox ma sama wàll en plus forte raison nag am na koo xam ni ku mu àndal rek moo la yóbbaale waaw ku mu àndal rek moo la yóbbaale waaw ah. looloo tax ñu fier waaw ah. fierté bu nga xam ne mënuñu ko fay sunu kilifa waaw ah. moo tax nag intox yooyu muy laaj rek xam naa njaboot yi ñorul li ci bàyyee xel waaw ah. li ñu daan wax naan gàgganti ko ci mbedd am na ku ko moomul ni man lañ koy def ci sama wàll nag masak wàllu góor gi waaw ah. lu ne nga ciy tekk waaw ah. nga tax na kon nag dafa am koo xam ni moo tax mu wax leen ci gàmmu gi waaw baat ya mu leen wax pour nit ñi xamne ne rek am na ku nga xamne yenn yi concerné wu ko parce bu ko soxla won kon kenn du ca jot ah bu ko defé kon lepp lu nga xamne hmm, gis nga li martin wax te ñu traduire ko ci arab توحكو حق يننتي صلى الله عليه وسلم وخني حرك عساكرة وأحكاما ودولا وملايين من الناس كو خمني لو بغي ينجل لو مو ري ري ري ينجل غكو te ba noppi nag nga toogaat fa nga toogoon gën am na loo xam ne bu xewee dafay reeloo sax boroom waaw ndax la mu xam moo tax waaw bu ko defee kon nag ah heure julli bi jot na amna naa yeneen occasion ngi ñëw sax ñu yeggale sunu waxtaan waaye walaw taqawala alayna baada al aqawil la axadna minhu bilyamin waaw yonent bi xawma lu mu sañ waaye sosal yàlla bokk ca yonent bi xawma lu mu sañ waaye yokkal yàlla bokk ca yonent bi xawma lu mu sañ waaye wàññil yàlla bokk ca waaw mel ni bu ko sañul nag ñi ko fi nekkal duñ ko mën a sañ waaw mënul nekk waaw dafa tolloog rek nag ndeysaan nit dana am fu muy toll day faf yërëm ñëpp ah ba faf nekk victime waaw waaw koo xam ni cette dimension la ngay def xajul ci nit ñi dangay ngay faf yennu lépp rek waaw ah. ah, waaw su ko defee rek nag ndeysaan liñ naan ka tax nga tal ko talu ko loolu moo fi ne waaye tabarkàlla rek moo tax toujours rek muy wax baatu muñam boobu nañu muñ muñu xaqiqa te bañ muñ muñu aada ah. mu ñu aada mooy nekk fii rek soow fii mer fii waaw naa jaru ko xamal li xew tëralal xamal fi nga jëm xamal koy siqal jeex na ah ba tax na kon njaboot yi di essayer nekk ci dimension boobule. waaw te dama foog ni. am na ñu ko dégg ndax li ñu wane ci sketch bi ci wàllu yimam Abu Hanifa ak amiril muminin ñaari amir yépp ku ci ne am loo ko proposé pos boo xam ne bu doon fii nga jëli sëriñ waaw waaw fii bu ñu ne remaniement ngi am mooy nekk traitu sëriñ si waaw wallahi ndeysaan war na ko wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan Baye Omar nee na jëf yi mooy tontu wax yi nee na mbooloo bii ak lii mu mel nii nee na tontu na lu bare waaw waaw non non tontu ñu leen sax njaboot yi la ñuy bàyyiloo xel waaw ba tax na fa tabaarakallahu ci cadre liggéey yi la mu ca wax ak ñun ñu nga ca la mu ñu ca war a féete ci wàllu xalaat ak ñaan mu nga ca li ci des ñoo ko moom ah ah ko assuré waaw wallaay ndeysaan waxin la waaw la eh, yu bari ngay xam waaw yu bare ngay xam yu bare ngay xam mu ko rek sax xaju fi te it rek xaayaa dégg séeréer waaw ni tabarkal la kon nag ku yëngal lu toll noonu boo nee pat dafa am lu tax ndax rien rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence waaw waaw assumtu xukmun waaw walakin qalla faaciluhu falazimuhu li tanju min musibaati maw doo ko waxoon waaw moo tax na rek mu defa ni fii ñu jëm wallaay ndeysaan nii ko soxna ndey kumba waxe waxe ko ci wàllu waa cité bi ah ñi ñu ko bokkal ci daayira bi di leen ko taxawul ah dafa tolloog àll bu ne la fa di ñuul moo fa dib ñag ah, nag bu ma dëkkee ci cité Alia Diène fa tabarakallahu ba yàlla dogal ñoom ñoo def seen yëngu def seen taxawaay def seen daayira yëgal ma loo tax ñun ñuy ñuy sant suñu kilifa ndax doo dem ci quartier mukk di jéema a propagande ña fa nekk di nga yàgg ca quartier ba sax duñu la xam fekk boobu du nga bëggul nit ñi defe ni dafa am luy wut waaw waaye tabarkal la ñoo demal seen bopp ba yëg nii war nañoo def seen section Moustarchidine ñu def ko yónnee ma seen këyit wax mën nañu tërale ñu boole leen ak ñoom Babacar ci niveau Dakar Babacar di leen jàppale ba ñu yegg si fii fa tabarakallahu mu mel ni itam taxawaayu cheikh taxawaayu soxna ndey kumba ak ña ci des ñëpp tabarkàlla di ëmb njaboot gi loolu wan na leen ko fa tabarakallahu bu ko defee kon nag ñuy ñaan yàlla rek at mu jot yàlla yàlla di maye kàttan di maye wér ñu di ko def mu ëpp na mu daan dem ñëpp di fekkee te yàlla saafara jàngoro yi yàlla faj aajo yi yàlla leeral dënn yi ci xam-xam yi yàlla maye ndam ci liggéey yi maye ndam ci jàng yi maye ndam ci tukki yi yàlla yàlla ubbi abwaab yëpp abwaabul xayr abwaabu niamati kulliha yàlla ubbil ñu ko ci barke sunu kilifa ñu nga sant tabarkal la moom kenn xamul nu mu toll ah. lii mënuñu am lu ko ëpp waaw ah. guddi gu ñetti fan yu tollu nii te boo amee góor gi jël Baye Omar jël Hadj Malick Cissé jël Samba Cissé waxtu wu ne ñu ñëw teew fi li mu bëgg a wax ak nit ñi moom xam na ko waaw waaw lay waaw ba tax na ko nag wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wax na dëgg luñ ko yónnee ci dayire bi day woo ñii ñu ñëw waaw mu jël taxi yi di ko liir waaw benn par benn lii xew nii lay deme nangam nangam waaw bu paree ñaan mu mel ni kon nag loolu moom rek a fii sag bi ah. kon nag ñu accepté ko dafay yombal yu bare ah daan na tabarkalla ñu ngay gërëm itam kilifa yi fi toog ni ñu ko waxee ci njalbeen gi wa tabarakallahu wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mm-hmm. waaw ah, nee day wane ni lii rekk la fonk waaw ah. mu mel ni itam ak it am lu mu ma seedeel waaw ah. ndax itam dañu waxtaan mbir ki démb waxtaan bu am solo mooy yàlla sunu borom ni muy saware ci tudd turu yonent bi gannaaw bu tuddee boppam yàlla sunu borom ni muy saware ci tudd turu yonent bi gannaaw bu tuddee boppam ba noppi ñu gis ni neexal yonent bi taxul waaye def di méritam ma ma jàng ba wa ma naqamu ok ah, bokkul ak ba ci asxaabul uxdud de wa ma naqamu إلا أن يغناهم الله ورسوله من فضله نعم نيو خامني كات لا تخ نيو سينغيلي لين لا يالا جيل لا موام موك يوننتم جوخ لين موتاخ كين مانوتو كو سيبورتي ba tax na ñu waxtaan ca waxtaan bu sore ci lu mel noonu waaw dafa am loo xam ni bu dalul xelu nit leneen dootul dal xelam waaw ko defee kon ñu continuer rek ci wàllu liggéey bi ñu ñi am dañoo am ci seen di ca ci seen façon ñu nit ñu ni ñu ko waxee ci jaraaf mbay ngiraan la ak sëriñ parti bi mu àndal seen teewaay bi tuutiwul ci njaboot yi rëy na te communauté bi ñu représenté yépp seen teewaay mu ngi fi ndax seen teewaay kon nag ñu ngi ko nuyu di ko sant di ko yëgal nii tabarkal la lii rëy na ci njaboot ji ñoom it seen programme ya ñu yor yépp lu ñu ca yëg rek ñu nit taxawaay ba ca war ñu def ko incha mu mel ni jaraaf seen bi leen jox terrain bi itam mook mag ñu baax ñi ci yof fii rek di leen abal fële ci université ramadan bi ci même initiative bi la nag bu ñu jógee ñoom it ñu sant leen ci turu njaboot yi waaw leen ni li ñu def rëy na ci ñun waaw mu mel ni sous préfet bi itam daf lay wóor ni bu bu bu bu ministre de l'intérieur d'accordul wa du mën a joxe autorisation bi waaw ah. nag dafa laaj fa mu laaj ñu jox ko ko parce que am na lu nga xam ni ku ko bañ rek dafa fekk nga gëlëm waaye boo gëlëmul nag doo ko bañ ndax da ngay xam ni sa alal la looy tax nag comme man dama am habitude du ma def lu ma yëgalul njaboot gi ndax bañ ko leen interprétel Ablaye Wade dafi yónnee ay yoon pour wax ni dafa bëgg a gisee ak man te comme man sama kilifa rek may wax ma def waaw yónnee naa ay yoon ma ne ko ci kilifa gi laa Nous waaw ko kilifa ga ah. am na ci bu nga sax la message pour me transmettre ko mu dana ba bërki démb moom ci boppam moo ma wax ni dafa mel ni ab lay soxla na la de ma ni ko ah, ci yow laa jude mu ne ma nan nga bëggee gise bi ma ni ko demuma fa pour propagande demuma fa pour campagne bu fekkee ni wàllu réew mi ko yitteel te ñun war nañu participer ci réew mi ñu nangu ko de loolu ko yitteel ñu wax mais bu dul loolu jaru ko mu ni ma d'accord naa ci loolu kon danaa yónnee wax ko ko bu ci d'accordee ngeen gisee kon nag yéenay njaboot gi day laaj ngeen yëg ko waaw bëgguma ëllëg dara xew ñu commenté ko te xamu nu mu demee ma di leen yëgal ni noonu la demee incha allah waaw waaw li ci am solo nag moom lay conclure moom moo ko wax barki démb ni ma sëriñ Babacar si mo len ko waxone pour ñaax leen mu ko yende ñun ñoo len ëpp chance ndax ñun suñu and ñemente ko laloon yeen nak seen and ëkkuwante ko lal te am na ñoo xam ni nag ñemente moo leen jig waaye rëkkuwante jigu leen waaw ma defe ni boobu baat nag valable na pour ñëpp waaw waaw ñemente te bañ ëkkuwante waaw yaakaar naa ne boo amee rek résultat yi dana gën a am solo waaw mu mel ni tabarkal la kon nag message bu mu ma yóbbante la ñaari baat yooyu baatu muñ gi mu ni naa leen ko wax baat bi ci des mooy bi ma mujj a wax léegi ànd bu tegu ci ñemente te bañ tegu ci ëkk wante waaw ba tax na kon nag ah mu ngee naaj dañu doon sànni ñaari baat ak ñetti baat rek pour conclure ñu ngi nuyu itam sunu mbokk bopp xaaj Daawuda Mbay ah dafa am lu ma benn mbokk wax bari ci démb waaye ba ma koy wax dafa meloon ni Daawuda Mbay laa toogal walla ma toog ak Sëriñ Abdu Buso Ja waaw benn mbokk murit boo xam ni Sëriñ Moustapha Bachir la jokk ci moom mu ñëw fan yii nag ma di ko recevoir mu wàcc yàlla ak yonent bi ni ma bu ma bañul woon fecc wóllëre kon tey ma amaat beneen sëriñ waaye comme fecc wóllëre baaxul kon ma nekk foofa te fas ci sama xol li ma fas dafa ni boobu wax ba mu koy wax maa ngi mel ni ku janloog la ñoom ñii ma tudd nii la te loolu lu jar sant yàlla la moo lay xamal ni dëgg rek moo am solo koo bokkal dëgg ga rek seen ànd dafay yomb waaw mu mel ni kon nag hmm? man laay retaan na kon nag ñu sant ñëpp ñu ngi jaajëfal ñépp kenn ku ne façon bi nga contribuer ci waxtaan wi ñu ngi la ci sant bu baax a baax ñu ngi wax ni góor gi Ahmed Sisar dafa amee ngànt moo tax mu yóbbanti ñu teewal ko waaye njaboot gi yépp a ngi fi tabarkal la Momar Thiaw mu ngi fi représenté ko ci collège yu père yi tabarkal Abdou Karim moo nekkal père yi Khady Gueye nekkal maire yi ñoom ñëpp ñu ngi fi teew ah wallaay ndeysaan ñu ni góor gi Abdou Bousso dafa am ngànt tey rek waaye teewoon na ci yi passé gëm naa ko tabarkal la mu mel ni itam comité permanent bi itam sëriñ mu ngi toog moog ñi mu ko séqal ñëpp tabarkal la ñu di leen sant ci taxawaay yeeg yëpp ma di leen suivre de près waaw lu ñuy ne ak lu ñuy wax ak lu ñuy def ba lu ñu ko def danañ ko wax ak man ba noppi lu ca war nekk ma wax leen lu ca warul nekk ma ni leen ñu bàyyi ko waaw tax na tabarkal la commission yi kenn ku ne la nga war a def yaa nga ca ñu ngay sant ñépp ci seen taxawaay maa ngi rendre compte góor gi bërki démb pour wax leen lépp lu ñu tëral rek ak lu luñ ca war a def dama koy rendre compte waaw mu jële ko ci sama làmbe yi waaw mooy gën wér ñeneen commenteel ko waaw waaw waaw looloo tax bi ma génnee Baye Omar Samb bi ni ma boo giseek moom rekk ma mel ni ku dem aljanna waaw waaw ni ma ndax seen gise farata la waaw moo tax fu ngeen gisee rek ma mel ni ku dem aljanna wax na dëgg tax na waaye moom it noonu lay neexee ci moom day sànn dafay neex ci moom léeg-léeg mu lay tooñ naan laa seen màggat gi day seen màggat gi day nangam ma ne ko yàlla na am ñaar téeméeri at waaw lay ndeysaan tabarkalla mu ñaan a ñaan ba da mujj ruus fa tabaarakallahu kon nag ñaan yooyu yàlla na ko yàlla mottali yàlla may njaboot yépp ñu fekke ko yàlla yokk sutura ci biir ak ci biti ñu ngay sant ñépp ku ñëw ci waxtaan week koo xam ni danga doon jaar dégg rek faf ñëw taxaw ñu ngi sant ñépp ñu ngi baalu ñi taxaw ci naaj wi bu ñuy sañoon ñépp xaj ci biir tant bi kon nag yàlla na yàlla defal ñépp yiw ci biir ak ci biti yàlla dàq seytaane dàq lor daq bépp xeetu safaan yàlla def ci xol yi yiw wu ñépp xaj te yàlla may ñu ndam bi yàlla di ko jëme ila yawmil qiyaamati kenn bañ ko wuute incha allah ñu ngay sant commission féminine ñu ngay sant cellule cadets yi ñu ngi leen di encourager

ma ne ko eh, Aziz bi nga jógee màkk ba léegi danga danga màkkat waaw ah, mu ree bu bëggatee sànq ma ko te ma may la ñaareel bokk ndax ah, affaire bi simple waaw ah. mu ni ma ci biir avion bi bi mu jógee màkk Mansour nee li mu njëkk a ñaanal jabar ji ma yàlla boo am wujj yàlla boo am wujj moom la njëkk ñaanal jabar ji ci biir avion bi bi muy ñëw waaye moo xam lu tax mu def ko kenn ku ne yaa xam la nga xam tabarkal la léeg-léeg Mansour bi ma tooñ ko ne ko waaye kaay ma may ñaareel bu di dimbali soxna mu ni ma danga ma invité woon mu ne ko waaw ma doy na <laughs> waaw andi jël ay dàllam rek ni ma xaaral ma ñëw man loolu doy na sëkk ni saa nga defee ci tooñ rek man dama mën tooñ waaw léeg ma tooñ keroog toog naa leen sax ci réunion bi ni leen am naa beneen soxna boo xam ni bitim réew laa ko takkee maa ko sànni noonu rek sama sama façon la message la ah message ba déjà lu bari génne na ci <laughs> saan ndax bi ma demee góor gi ni ma ah dama dégg ne da nga jël beneen soxna ma ne ko non mais maa ko def rek benn genre sonde la bu ma sànni ni ma ah waaw kay <laughs> daal di ree ni ma baax na ci nag waaw tax na tabarkal la léegi nga tooñ nit ñi rek sànni benn affaire seet ba xam nu nit ñiy réagir parce que foog nga xam nit ñi di leen tënk lan la waaw ah, bu teyee nga jaar ko fii beneen yoon nga jaar ko ci leneen pour set fu nit ñi toll ak it li leen conditionné lan la waaw tax na tabarkal la saalit xaw naa am waaw salit xaw naa am la dama yegg kër gi rek ndeke am na ñoo xam ni par portable yëgal nañu leen affaire bi ñu woo ci téléphone de commencé yikkat sama soxna commencé yikkat waaw lu xew mu ne ma li ma dégg nag li ma dégg ma ni ko mu yéen lu xew ndeysaan ak léeg-léeg nga seetlu rek ndeysaan sànni benn affaire rek am xool nit ñi nuñ cay réagir rek da ngay tooñ rek waaw. ma ni lépp ma neex ci xolu doomu aadama. wallaay ndeysaan billaay billaay ndeysaan. mbaa ma nee na lépp ba neex. waaw ci xolu jaboot tabarkal la waaw. lu ci ne boo ko ko waxee ak façon boobu koy déggee dafay am solo. tabarakallahu ba tax na kon nag ah kon boog ma wax leen dama leen doon nax boog. tabarkal la.

yàlla yàlla def tawfiq ñëpp kontaan nañu waaw léeg ndey saan ku nekk ak la rëy ci yow lay ndey saan adxaka ah, allahu sinnaka ya rasulallah lay ndey saan ah Seydna li nit ñi daan safoo ci yonent bi moom du ko safoo lenn rek a ko saf mooy ñu wax nit yonent bi lu ko neex mu xaqataay ba mu seen bëñ bi bu ko defee mu dof naan ko adxaka allahu sinnaka ya rasulallah waaw waaw ku nekk ak li la sax ci nit waaw waaw sama soxna ba waxee mu ne la man daal benn rek ma saf man ko mu ne ma noonu góor gi def bu waxee ba jàng di def loxo bi baaxul baaxul way baaxul waay mu ne ma boobu daal façon beeg mu ne ma style bi mu ne ma kooku du moroomu ñi fii waaw ma ni ko beneen affaire la tabarkalla waaye ku nekk ak la la saf ci nit waaw ah. daa nekkoon nag daxakallahu si nekk ya rasulallah yal na ko yàlla di def di ko yaatal commencé ko ca yonent bi ba ñu ko tonno ñun ñëpp ñu dugg ci biir waaw kon nag naaj na ñëpp kontaan nañu ñëpp bég nañu yal na ñëpp di bég ila yawmil qiyaamati waaw ci sunu barke kilifa yal nañ ko yàlla defal na ku ne jàng fatiha ah ah kon nag góor gi day ñaanoon na ca sax de ah lay ndeysaan kon nag ñu téye ko يالله بركل إن شاء الله نبغى دف إكزامي كباركي غورجي يالله يالله ميلين غام دم ريسيت بوكن فوقولي إن شاء الله ها ها man ko la la rabiatul adawi waxon boromum rek la lay wax ni nga yobulo ko ndax ku ne am nga ko sop من يغني لي باسم من أحب وخلي كل من في الوجود يرمي بسهمي لا أبالي ولو أصاب فؤادي إنه لا يضر شيء مع اسمي لا لبيا بارك الله بارك الله بارك الله تبارك الله وانا دق حتى نكون يعني يلا نمو يو يو يب تيالا موتليكو ñoom it la ba ñu nekkee ci daara ji lañu leen miin fa tabarakallahu kon nag sant yàlla la ñu toog fii ñoom it ñu toog fii ba léegi waaw loolu ku ko yàlla defar rek nga sant waaw tax na tabarkalla kon nag ñu ngay ñaan kenn ku ne jàng fatiha teg ci juróom-ñetti li ila fi quraychin bi góor gi waxoon ñu jàng ko teg ci ayatul kursi teg ci falaqi ak naas yi waaw nii sunu mbokk waa SAIT nee na ñun ñu ngi branché wu ci internet bi di suivre waxtaan bi kon nag ñu nuyu leen waa te sant leen tabarkal la eh, di leen wax rek nit ñoo ñoom bokk yëf yi tabarkal la yal na ko yàlla mottali si tout le monde àdduna yëpp a ngi koy suivre yal na yàlla mottali tabarkal la ba na kon nag ku ne jàng fatiha ak juróom-ñetti lii la fi Quraysh teg ci ayatul kursi teg ci falaqi ak naas ak salaatu ala nabi ñu def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp dugal ci seen yéene ñi teew ak ñi teewul yëpp ñu yóbbaale leen ci wàllu ñaan incha allah yal na yàlla defar yëpp te yàlla rafetal yëpp te yàlla mottali yëpp te yàlla aar ci biir ak ci biti rawatina ci njaboot yu ndaw yi incha allah ñu ñaan ko incha allah bismillah la ñi ngi jaajëfal mbokk yi bu baax a baax ci li nga xam ne moom lañu fi indi waaye balaa ñuy woyaat ah, dañuy nuyu suñu kilifa di la dalal jàmm ah, ndax ngir yàlla ak sa mbaax moo tax ñu mën a def lii ngir jële ci yow kon ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ci suba si di ci teg suñu kilifa ba tey sëriñ Mansour teg ci suñu baay maam Omar Samb a ah, mu mel ni rek kon ñu demaat ba tey ci wàllu programme bi ñuy jëm ci benn sketch muy wax ci wàllu dund ak nekkinu imaam Abu Hanifa ba tey waa Dakar 1 ñoo ñu koy defaral kon ñu bàyyeeg mbokk yi ah, ñu daal di agsi rek indi li nga xam ne moom la ñu waajaloon bismillah mihras min xasab mihras min xasab mihras min xasab تعالوا راس من حسب تعالوا تعالوا من راس من حسب صوت تعالوا صوت راس صوت حسب تعالوا تعالوا من راس من صوت حسب تعالوا تعالوا من راس من حسب تعالوا تعالوا تقوة المنسوب تعالوا تعالوا كسوة كسوة كسوة المنسوب تعالوا تعالوا من راس من حسب كسوة المنسوب كسوة كسوة تعالوا تعالوا من راس من حسب خمسة وعليكم السلام ورحمة الله هذا بكم سلام دراهم يا سيدتي لا كم بكم هذا الكسوة؟ خمسة درهم هذا جميل جدا بكم هذا التمر؟ شكرا تعالوا تعالوا رمانة الحمراء أرجو أن يقبل أمير المؤمنين هديتي المتواضعة أمير المؤمنين مو نكونون مو سيدنا علي مو نكونون تي مارشي بي دي سوبرفيزي اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ما لا امير ايها الطالب أرجو أن تهدينا منها كل يوم جعل الله لك الخير والبركة ولذريتك وأنبتك نباتا حسنا الحمد لله يا أبي الحمد لله يا أبي أرجو أن يستجيب الله دعوة أمير المؤمنين لك ولذريتك يا ثابت ñaanal na xale boobu te wax nañ ñi ngi mihras min zahab mihras min zahab abu hanifa bi salata dirahim kon saabit moomu mu ñaanal moo fas yéene jur Nu'man te noomaan moom la wax mooy Abu Hanifa kon saabit moo mujj a nekk ci marché bi bi papam gaañoo Nu'manul awwal am fi soxna moo jur Nu'man as-Saani te mooy Abu Hanifa moom mi nga xamante ni moom lañu bëgg a jàngale dundam tey ci jaar-jaar yi nga xamante ni moom la jaar xam-xam bi nga xamante ni moom la amee الطلاب ما حضروا حتى الآن daara la daara ji imaam Shaabi moom moo fa nekk mu ngi noonu وعليكم السلام muy xaar bi ñu ñëw ci daara ji كيف al اليوم سندرس في مادة الفقه الزكاة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 إنما عنيت أن أسألك عن الذهاب إلى العلماء أنا قليل الذهاب إلى حلقات العلم لانشغالي بتجارتي يا بني لا تغفل عن طلب العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وحركة فإني أرى فيك يقظة وحركة فإني أرى فيك يقظة وحركة نعم يا إمام الشامي من الآن سأذهب إلى حلقات الآن بارك الله فيك الله أكبر الله إذا حان وقت الصلاة فننتلي حتى غدا إن شاء الله بارك الله فيكم نمدون فاتلي أبو حنيفة باسكو أبو حنيفة دفا جينغون لو أوب تي والو كوميرس بي فتي دم جانجي مكوي دلو سي وات ديكو يدات pour mu gëna fonkat njangam ci la abou hanifa joge nak fune mu dugg fa daara ju ne mu dem fa boroom xam-xam bu ne mu dem ci moom pour rek sàkku xam-xam parce que daara mooy li nga xamante ni moo ko yitteel kon gis ngeen à l'âge de 22 ans ci la Abu xanifa daal di ber daaraam daaray imaam Abu Hanifa moo nekk noonu donc yaa ngi noonu di ñëw gis ngeen imaam Abu Hanifa mu ñëw noonu ci daara ji salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان والعقيدة نتحدث معكم حول حقوق الجار قال عليه الصلاة والسلام في حق الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني وقال عليه الصلاة والسلام في حق الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حاجتك يا بنتي جئت لأستفسر عن مسألة فقهية هاتي ما عندك كثيرا ما يجاوز حيدي عادته ولا أدري ماذا أفعل يا أبا حنيفة سؤالك عجيب يا ابنتي ما عرفت الجواب ولكن اذهبي إلى الشيخ حماد وأعرضي عليه مسألتك ثم عودي إلي واحضريني بالجواب منه نعم يا أبا حنيفة سأذهب إلى الإمام حماد بن أبي سليمان لأستشيره بارك الله فيك الحمد لله قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حق الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وقال صلى الله عليه وسلم في حق الجار والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن فقيل من يا رسول الله فقال من لا يأمن جاره بوائقه أي ظنه وغشه بارك الله فيكم بارك الله فيك ما أفصح هذا الجواب وأكمله سأذهب إلى الشيخ حماد لأطلب العلم وفوق كل ذي علم عليم مصداقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا أقول قولي هذا واستغفر الله لي إن شاء الله سنذهب معك إلى إمام محمد بن أبي سليمان بارك الله فيكم وفقنا الله في خير الإسلام والمسلمين اللهم آمين اللهم آمين كون جفيا الإمام بمو أبي دارم سنو لاتكو كيشون وانت إمام تي أونتتم تي ماندوم خمول كيشون بي مو يبالكو تي بنين كيليفو بنين بروم دارا مو إمام حماد ibn abi suleyman xamaat moomu moo ko tontu question bi bi mu ñëwaatee wax ko ko gis ngeen abu xanifa dafa tëj daaram ànd ak ndongo yi fas yéene dem ci imaam xamaat ngir yokk xam-xamam kon gis ngeen li mu wax ni fawqa kulli zi ilmin alim kon à l'âge de 40 abu xanifa ba mu demee ci imam xamaat def na fa 18 ans léegi mi ngi ni am na quarante ans kon am na lu xew tey ci kër gi ñu xool lan moo xew بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام انتقل شيخي حماد من دار الفناء البقاء إنا لله وإنا إليه الراجعون رحم الله الشيخ حماد كن سرين بي حماد مومو جنا أدنا السلام عليكم ورحمة الله يا أبا حنيفة السلام عليكم ورحمة الله يا حفصة وعليكم السلام ورحمة الله يا ليلى يا حفصة ما حال الشيخ اليوم؟ إنه لقد فارقه شيخه وحبيبه حماد بن أبي سليمان إنا لله وإنا إليه راجعون أهو الوحيد الذي علمه يا حفصة؟ لا يا ليلى بل تعلم من كبار الفقهاء والمحدثين كعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وعطاء ابن أبي رباح مفتي مكة وفقيها وزيد بن علي زين العابدين وأحي محمد الباقر إذا يا حفصة اترك البكاء ما بقي إلا الدعاء بسم الله رحم الله سيهه وجعل مسواه جنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله يا أفسر وعليكم السلام ورحمة الله dafa ñëwoon di seet ci góor gi wante góor gi tey xaal bi soppeem ba sëriñam ba imam hamad يا سيدي اسمع جيدا ما أقوله بالأمس كان فخر الطالب أن يقول أدركت ألف شيخ كتبت عنه لكن اليوم لم يعد الوقت يسع لذلك ورب رجل كألف ورب ألف كأف ويقول ابن المبارك إذا سمعت من شيخ واحد سبعة أحاديث محفوظة ومفهومة فلا تبالي بعد متى مات وسيما إذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد يا سيدي بارك الله فيك يا حفصة رحم الله شيخنا حماد يا حفصة نعم أعدي لي الراحلة لأذهب إلى المأتم kon gis ngeen xabsa baat yu am solo yooyu mu ko fàttali mu ni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 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير لا أعرف لماذا لم يأتي الشيخ اليوم عذاب جهنم وبئس يعني. المصير إذا نذهب إلى بيته لكي نعرف السبب فيها سمعوا لها شهيقا السلام عليكم ورحمة الله الله العظيم وعليكم السلام ورحمة الله يا هند أين أبو حنيفة؟ إنه نائم يا زينب كيف ينام يا هند؟ ونحن ننتظر في حلقة الدرس لطلب العلم اسمعي يا فاطمة أما علمت أنه ما نام أبو حنيفة بليل منذ عرفته وإنما كان نومه بين الظهر والعصر في الصيف وأول الليل بمسجده في الشتاء وكان نهاره كله للعلم وحلقة الدرس وجعل ليله للصلاة وقراءة القرآن هل فهمتما يا سيدتاي؟ نعم فهمنا بارك الله فيكما جزاك الله خيرا وعنا به والسلام عليكم ورحمة السلام الله السلام عليكم ورحمة الله نرجع إلى مرة أخرى نعم إن شاء الله isan audu ila alxujra li ukammil al amal kon soxna yooyu ngeen gis dañoo ñëwoon di laajte ci góor gi pour jël ci bind ante ñu ñëw fekk góor gi di nelaw soxna si ni leen day nelaw mu wax leen tamit ay baat yu am solo mu leen abu xanifa masul nelaw guddi ba ma ko xamee ba léegi nelaw kon moo tax dundam yëpp daara la ko def dundam yëpp jaamu yàlla la ko def moom abu xanifa kon ngeen gis pale la buur bi mooy ñëw kooku moom mooy Ibnu Hubayr ci jamono boobu moo nekkoon président de la république bi saaba sul woon garde bi ayna cheikhaan inzal lahuma bi duxul kon dafa am ñaari góor yu mu woolu pour ñu ñëw ay borom xam-xam lañ nak ñu xol lu mu leen di doye doyee شكرا السلام عليك يا مولاي وعليكم السلام اجلسا انتما الشيخان نريد طوليتكما بعد عمل في الدول انظرا هذه الرساله kon dafa am lu leen bëgg a ci nguur gi fal mudiyaay naam yaa mawla qabil na kon gis nga ñooñu ko saaxiba sulta nangu ana aba xanifa izan lahu bi duxul corrompre na cheikh yooyu même woolu abu xanifa ñu xool abu xanifa moom it su ñëwee est ce que dina nangu comme yi ñaari kilifa yooyu salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu وعليكم السلام ورحمة الله اجلس يا أبا حنيفة يا أبا حنيفة نريد طوليتك خاتم الدول ولا تخرج رسالة إلا بتحت يدك ولا ينفذ أمر إلا بعد أن تختمه أو تصدق عليه لست أهلا لهذا المنصب يا أبا حنيفة هذا ليس منصب النهبين ولكن منصب الدول معذرة يا ابن هبير لا أصلح لهذا المنصب فوالله الذي لا إله إلا هو إن لم تقبل لأشعلن عليك نكالا فوالله الذي لا إله إلا هو لن أقبل هذا سخان كلمة يا أبا حنيف تقبل هذا المنصب إن لك فيه كرامة والله لا أوافق على ذلك أبدا يا أبا حنيفة لا تعرض نفسك إلا التهلك فإن لك فيه كرامة فوالله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هل خبير؟ فوالله لا أوافق على ذلك أبدا أيها الجنود خذوا إلى السجن واضربوه حتى يقبل كن جسنا أبو حنيفة بينا أيها الأمير قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين صدق الله العظيم إن لم يقبل اقتلوه إن لم يقبل اقتلوه أي ساخن اخرجوا سوف نرى سوف نرى من يخلف عن ذنب kon gis nga buur bi merna ndax bëgg na denk abu hanifa dara ci nguur gi abu hanifa bañ abu hanifa neena ko sauver sama ngor ak sama personnalité ak sama dignité ak sama pas-pas momu gënal ma nangu seen mbiru état yi kon neena na garde yi ñu door ko ba mu nangu su nangu rek nañ ko ray wante abu hanifa ñu xool ba xam dina nangu wala du nangu alhamdulillah ya allah اللهم انك قلت في كتابك الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاين ذلك المخرج يا رب فاين المخرج يا الله فاين المخرج أين أبو حنيفة أين أبو حنيفة أنا أمه جئت لأكلمه لقد أذن لي أمير منه أين أبو حنيفة أين أبو حنيفة يا ولدي لماذا جئت إلى السجن يا أمه اسمع يا ولدي قل لي مطيعا حتى يحشون الله عنا هذا الغم يا أمه والله لا أوافق على ذلك أبداً لقد أدمت عيني الدموع وانتصرت القلب للألم وانحق قواي الهم فاقبل ما يريد يا أمه لا تبكي ولا تحزني توكلي على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أبا حنيفة والله لا خير في علم يضيعك هذا الضياء ويجعلك في هذا العذاب يا أبا حنيفة إذا أردت أن تموت أمك فابق ما أنت عليك يا أمه أنا بكيت وما بكيت فرحا للسجن ولا خوفا للسجان ولا رهبة للسلطان وإنما بكيت لحزنك يا أمه إنهم غرضهم الحياة الدنيا وأنا اخترت بالآخرة اخترت عذابهم بعذاب الله توكلت على الحي الذي لا يموت يا أمة فصبرا جميلا فصبرا جميلا اللهم إنك قلت في كتابك الكريم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم آمين يا رب العالمين ko nangul rek li nga xamante ni moom lañ la jox Abu xanifa pour nga génn ci mbugal bii ñu lay mbugal wante Abu Hanifa wax na ko la góor gi waxoon xayaatun bi sharaf aw mawtun bi sharaf dund ci honneur rek wala dee ci honneur kon ñu rey ko moo ko gënal mu nangu seen yi nga xam ne ci àdduna rek la yam kon ñoom seen objectif àdduna te moom alaaxira la taamu kon ibnu hubayr ñëwaat na ci pale bi نعم يا مولا أنا الشيخان الشيخان بالباب أدخلهما نعم يا مولا سمعا وطاعا السلام عليكم يا xamante الأمير وعليكم السلام ورحمة الله ما حاجتكما أنتما الشيخان يا مولاي الأمير جئنا نحمل رسالة من جميع أهل كوفة من شأن أبي حنيف ولماذا لم يوصل أهل الكوفة وفودهم إلينا في هذا أين الرسالة؟ حزر الرسالة waa Kuufa ñoo yónnee pour buur bi libéré Abu Hanifa. ما هذا وما العمل كل أهل الكوفة يطالبني لاحتلال سبيل أبي حنيفة ما رأيكما أنتم الشيخان؟ يا مولاي الأمير رأينا أن تطلق أبا حنيفة صراحة الفهم تعظيما لعلمه وتهجئة النفوس يا مولاي الأمير إن الكوفة أصبحت بعد سجن الإمام أبي حنيف كادوا بالجهل إن الثروة لآتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صاحب السر نعم يا مولانا أطلق صلاح أبي حنيفة نعم يا مولاي شكرا لكما أنتم الشيوخ jazakumullah xayran kon gis nga bi waa Kuufa yónnee ñu ñëw wax ak buur bi ci mbiru Abu Hanifa ni ko Abu Hanifa waa Kuufa yëpp nee nañ nga bàyyi ko parce que moo ñuy jàngal mooy suñu giit mooy suñu lépp ñi ngi lay ñaan pour nga libéré ko ci la buur bi wàccee gàddaayee dem màkk azaa di ñëwaat wa ayu fatan ليوم كريخة والسدات السعار كأني واع أيها سليم المهتمية ألا تعرفني يا أخي غفر الله لك أنا سالم سالم إسكفين لماذا لا تكلمني يا سيدي المبتل لكن الله يعلم عني خلاف ذلك أتقسم نفسك عير مني قل قل إني سالم سالم كالسالم يا أخي هذه داري وأريد الدخول فيه فإذا كنت تريد أن تتم باقي كلامك فأتمه حتى لا يبقى في صدرك شيء ألم تسمعني يا أبا حنيفة اجعلني في حلم يا أخي أنت في حلم وكل من قال في شيئا من أهل الجهل فهو في حلم وكل من قال في شيئا من أهل العلم فهو في حرج يا أبا خليفة يا أبا خليفة يا أبا خليفة ماذا أه؟ تريد من هذا الرجل؟ به إلى الأمير لا تجزع لا تجزع أيها الرجل اسمع سألحق بأمير إن شاء الله وإن شاء الله يفرج عنك لا حول ولا قوة إلا بالله كن جسين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كن gis أبو حنيفة نمو دف أك def ak mandikat bi ba ديكو يوبو تيبور di ko yóbbu ci buur bi noonu mu mel ni lañ leen waxoon sànq abu xanifa bi mu demee màkka am fa six ans bi mu ñëwaatee dafa fekk beneen régime moom moo falu te moom mooy abbasi yuni gannaaw ba ñu jógee ci amawi yuni ñu yaakaaroon ni su ñëwee ngu dina changé mais ñu xool kon abu jaafar moo nekk noonu moom mooy seen amir صاحب السلطة نعم يا مولاي أين أبو حنيفة؟ أبو حنيفة في الباب أدخل سمعا وطاعة يا مولاي كون جسمي كن يوريك أبو حنيفة لا يو أبو حنيفة برام حم حم لا برام إكسبرينس لا لون لا تيريوم أهو يا مولاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يا أبا حنيفة نريد تولية كمنصب القضاء لا أوافق على ذلك أترفض أن تتولى منصبا في خلافتنا يا أبا حنيفة نعم فوالله لا أوافق على ذلك أبدا كائنا ما كان كذبت بل أنت خير من يتولى منصب القضاء إذا لقد حكم علي أمير المؤمنين إني لا أصلح إذ كيف يحكم أمير المؤمنين أمر القضاء لمن يكذب الآن فلك القيار منصب القضاء أو السن والله لا أوافق على ذلك أبدا صاحب السلطة لا لا مولاي قصوا إلى السن أيها الأمير الحمد لله فأنا مستعد لتحمل على كافة المشاقات والله المستعان على ما تصفون كفانا نعم. بسم الله سي فإن لم يقبل فدروه فاتك أمنا لنكدين كتي نقولكي أبو حنيفة باتاي بانا فاتك نيوم سين أبجيكتيف يب موي أدونا تموم باس باسم الدين مو موكو غنى لومو أم موتاك مو بانا جل دارا جسين غور kon buur bi mi ngi noonu mer na lu tax Abu Xanifa nanguwul صاحب السلطه نعم انا الشيخان الشيخان بالباب الزم لهما بالدخول كون امنا يينن شيخ يو ني يوني وات ني نيوات تي غور بي بور واخات موم من شان ابي حنيفه وعليكم السلام ورحمه الله ما حاجتكما انتم الشيخان يا أبا جعفر من فضلك نريد أن تخرج أبا حنيفة من السجن لأن أبا حنيفة قائدنا ومعلمنا هو الذي يرشد الناس إلى الخير ويهديهم إلى صراط مستقيم كيف أخرج أبا حنيفة من السجن وهو يرفض أمر القضاء سمعت أن أبا حنيفة أكثر الناس علما وأعلمهم أمر القضاء يا أمير اطلق صراحة أبا حنيفة نسأل الله لك الخير والبركة ولذريتك ومن معك يا أمير صاحب السلطة نعم يا مولاي أحضرني أبا حنيفة هنا kon bur bi neena ñu indil ko abu hanifa ko ñoo ñu dañoo ñëw wax ko abu hanifa limu doon ci ñoom wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah kon gis ngeen mi ngi noonu yor mbuusu xaalis di ko yëngal xanaa dag ko bëgg a jox يا أبا حنيفة كرون برك هذا الكيس فيه ألفين درهم أريد أن تأخذه وتلبي طلبنا يعني لا فوالله يا أمير المؤمنين المال مال إن المال والرئاسة والحرص عليهما تفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله والنفس تحبب الرفعة والعلو على أبناء جنسها ومن هذا نشأ الكبر والحسد أما علمت أن الله جعلك إماما للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يعبد ويطاع ونسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقوى والعفاف والغنى وأن يجنبنا شهوات الغي ومضلات الهوى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله gis ngeen li mu wax buur bi na ko ما أفتقه هذا الكلام نول حلاوة وطلاوة ومن الآن أطلقت فرحك يا أبا حنيفة أطلقت فرحك يا أبي حنيفة فإذا كنت تريد أن تنصرف فانصرف الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم أنتم شيخ ak xër ci ñaar yooyu mu ne dafay yàq diine mu ne ko beneen bi tamit topp sa bakken daf lay yóbbee ba nga bëgg a kawe ak yëkkatiku mu ne ko ci loolu ci la rëy ak kañaan jóge mu ne ko nag yàlla daf la def imam te imam ñëpp dañu war a roy ci moom ndax ragal yàllam kon gis ngeen loolu moom mooy li nga xamante ni la abu xanifa jàngale ci yu am solo yooyu nga xamante ni moom la jàngale ci wàllu pas-pas ci wàllu téye sa pas-pas téye sa dignité téye sa honneur pour am idaatu mustarshidin online isaatun tudiu alxayra walhidayata fi laalam izaatu mustarshidin online sawtu alxaqi walxaqiqati fi laalam إذاعة مسترشدين أونلاين إشراق فجر جديد في دنيا الاتصال مستمعينا الكرام mustarshidin online